da daal di am am loo yëg mm-hmm. man nag bi ma ko bi ma ko jëkkee yónnee mm-hmm. son biñ ci boole mm-hmm. dañ cee tudd benn gëstukat bu ñuy wax Alain Robert Alain Robert moomu nag yàlla dogal ma mës a dajeeg moom ci Cheikh Mouhamadou Mourtada yàlla na sunu borom yokk leeram taas ñu ci barkeem amiin bi ñu dajee boobu mu bind benn livre livre bi li ci ëpp sax ay nataal la ci def mm-hmm. jébbal ko sëriñ bi livre bi tam ñu koy yaatal foofu ci Amérique mm-hmm. ma kii de naa ko interviewé ba xam cosaanu livre am bii mm-hmm. bi ma koy interviewé mu daadee ni ma man damaa dem Sénégal fu ma gis rek ñu bind kër sëñ Touba kër Xaadimu Rasuul kër Soxna Jaara bu dee bijouterie muy tailleur ba ci oto may gis ay Lamp Fall sëñ tubaa Soxna Jaar mm. ma ne lii ban société la ñun ma lii du société sëñ tubaa ci boppam ñi ko gëm yaakaar ko ñooy def lu ñuy yëngu lu nekk tudde ko mm. mu ni kooku kooku de war naa ko gëstu mm-hmm. nee na mu ñëwaat fi yoon woo xam ni mm-hmm. daal di may joxoñ doomam ji mu àndal booba moom ak soxnaam ak doomam ñi nga ànd mun ma sama doom ji Sénégal la juddoo mm-hmm. ndax damaa demaat yeneen yoon woo xam ni gëstu rek mbirum sëñ tubaa moo ma yóbbu ba sama doom ji Sénégal la juddoo mu ni ma gëstu yi nag tax na lu baree bare ci ay archives bu sëñ bi ma ma amoon ci accès waaye gëstu ba itam jural na ma loo xam ni fi ñu toll nii jamono ji ñu toll maa ngi Los Angeles am contrat ak université bu Los Angeles jural benn weer yoo xam ni exposition mbirum sëñ Tuubaa rek lay doon te am naa ko ci yeneen université xam nga foofu sëñ Jibril nga jàngaat foofu mhm. kii nga xam ni ab juif la mhm. di nit ku weex tàll mhm. di américain jaral nag mu bàyyee itam yëpp ñëw Sénégal di gëstu mbirum sëñ bi taxul li mu gis si mbirum sëñ bi ba xam ni mën na ci jëriñ ba bind ci Mm-hmm. ba di ci wër di ci def ay exposition nga xam ni université américaine bu muy def exposition day am contrat pendant six mois mm-hmm. ndongo ya fa nekk di jàng yëpp di xool di jàng mbirum sëñ bi mm-hmm. moo tax biñu ne ci moom la nataal yi jógee ma ni lu mën a nekk la daa di moo tax sañaam sànq bi mu ma waxee ci la ñuy waxtaan ma ne que ki ma dégg ñu tudd ko ci de lu mën a nekk la buñ demee nag ba mu mu jural leen ñu koy def vente aux enchères Mm-hmm. loolu it day wanewaat rek ni sëriñ bi mm-hmm. luñ koy tudd lu nekk rek barke bi nga xam ni ci moom la ko sunu borom defal lu ci mm-hmm. waaye di la sa ñablaat waxoon rek ku nekk la la tax a jóg ci moom am na ko waaw bu dee àddinaa la tax a jóg am na ko te doyoo ko dara bu dee ëllëg nag moo la tax a jóg itam foofu itam dal na xel ndax sëñ Abdoulaye wax nañu ay yooni yoon ni nu benn mujj du fi ñëw di ma jàmbat mbirum ah, mbirum mbirum mbirum àllaaxira mhm. mbirum àddina rek lañ fiy jàmbat si kon te dara waralu ko lu dul yaqin gi ñu am ni mm. fee moom sëñ Tuubaa la lan fay ragal yëpp duñ ca gis dara mhm. kon euh, jàngat boobu rek laa ni woon euh, li ko génnee mhm. mën na nekk ndax Alain Robert moom xam naa ko te xam naa gëstu yi mu sonn di gëstu mbirum sëñ bi pour kii lu mel noonu rafetlu bu baax nag euh, analyse bi nga xam ne moom la ci sëñ Baye si lu def nga xam ni dàquñu ni jëmmi sëñ bi